asalaamaaleykum euh, chers internautes tey ñu ngi leen di dalal euh, ci Sénégo TV euh, te ñu ngi dalal Bocar njong muy responsable APR au niveau des Parcelles seni monsieur Ndiongue ñu ngi leen nuyu. merci beaucoup monsieur Camara Khalil am vraiment contentement bu rëy ñëw ci seen plateau. Mm-hmm. di waxtaan ak di nuyu ñi di suivre ñëpp Sénégo. ok donc euh, pour revenir un peu l'actualité en tant que ñu fàttali que apériste nga au niveau des Parcelles Assainies donc euh, jamono boobu si si week-end bi sax laay wax euh, le cas de Djibril Ngom peut-être dégg nga ko muy le euh, l'ancien coordonnateur de PASTEF à Matam donc moom moo dawoon ak liste yi donc il a été reçu par le président Macky Sall donc en tant qu'apériste yow naka nga mën a jàngatee loolu. waaw c'est vrai que ça fait. l'actualité et l'information waaye mhm. man li ma jàpp mooy le président de la République quand même c'est le président de tous les Sénégalais mhm. de quelque bord bu ñu mënta nekk mhm. am na droit recevoir évidemment compatriotes yëpp à leur demande ak aussi bu ko sentiree ak aussi bu ñu fexee ba yegg ci ñu donc c'est le père de la nation d'abord léegi nag euh, par rapport ak ban casquette la ko recevoir ak lan mooy mobile mu recevoir ko jàpp naa ni quand tey jii éthique ak morale permettrul euh, mu war ko recevoir ci anam yenn yi mhm. parce que li mu def euh, muy Djibril Ngom monsieur Ngom en l'occurrence mhm. ñun parlant d'éthique et de morale mhm. rafetlu wuñu li mu def parce que quand on est investi d'une certaine confiance nga nekk mandataire coalition quelle qu'elle soit waruloo mën a trahir seen confiance ci anam bi mu ko defee. lu ñu ñaawlu la lu ñu rafetlu la. donc parce que moom soo xoolee bi muy génn euh, def na benn post page Facebook am di tenter justifier un peu euh, audience boobu ne moom moo ko euh, sàkku woon ci Farba ngoom donc même enveloppe bi sax par rapport ak loolu ba gis nañ benn enveloppe gars yi ñu bëri ñu ngi polémique que ni xaalis la xaalis moo nekk ci biir enveloppe bi donc si loolu sax nee na il l'a reçu de Farba aussi donc est-ce que yaa ngi rafetlu loolu aussi. man li ma jàpp ni le président de la république dañ ko war a protéger son image doit être protégée. Mm-hmm. et que même bu ko recevoir bu ko recevoir tamit jàpp naa ni amuñu woon pour publier certaines images ak certaines postures. Mm-hmm. Euh, qui se justifie rek s'accuse mm-hmm. moi je pense que ni euh, de sa bonne fois monsieur Ngom mënul convaincre benn sénégalais ci acte yu mu posé ak ci rencontre am ak le président de la république. ok donc ñu ñëw aussi si beneen point muy charte de non violence parce que gis nañ fi aussi euh, certains leaders de la coalition Yewwi Askan Wi euh, dont le, le leader de Pastef génn na ne du signer charte de non violence bi te joxe na aussi ay raisons mais ay raisons peut-être yi mën a euh, yi nga ko mën a nangul donc yow est-ce que ban jàngat nga ci am yow par rapport ak discours am boobu noonu. waaw man d'abord damay rafetlu charte de non violence bi nga xam ni le président mooy Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Mhm. muy le CUDIS pour le dialogue et la paix mhm. au Sénégal euh, dama jàpp ni euh, Sénégal réewu jàmm la te ci tradition boobu la ñu ndox a te jàmm lu ñu ko jëndee rek jar na ko parce que on ne peut pas développer un pays ak bu mu munti doon te nekkuñu ci jàmm mhm. institution yi nekk si jàmm ni ñi nekk si jàmm mhm. loolu mooy daral xelu investisseurs yi mooy dalal xelu bailleurs yi mooy daral xelu compatriotes yi parce que nit ñi war nañu mën a vaquer ci seen ay euh, occupation ci lépp lu mënti doon mhm. violence nag su toutes ses formes ñun dañ koy bannir mhm. man je suis un exemple concret mhm. nekk Parcelles Assainies nekk di jàppale le président son excellence Macky Sall nekk Parcelles nekk à Paris connu et reconnu tey jii euh, semaine bi ñu génn recevoir na coalition yu bëree bëri yi nekk Parcelles nga xam ne dañuy wutu mairie bi parmi lesquels muy waa Yewwi Askan Wi. Mhm. comme aussi mouvement citoyen Yewwi Askan Wi par exemple seen coordonnateur Jamil Sané ñëw na seet si ma. Mhm. échanger waxtaan. Mhm. Yewwi Askan bi bu weesoo am na coalition bu fa nekk aussi liggéeykat yi ak liggéeykat yi. xam ne sama jeune frère jiite. ñëw na seet si ma. ak aussi. sunu camarade socialiste bi nga xam ne ñoo bokk la coalition Benno Bokk Yaakaar te mu def une liste parallèle aussi ñëw seet si ma ak aussi d' autres mouvements citoyens yu nekk foofu ci mel ni Moussa Gueye mhm. ñëw seet si mhm. loolu yëpp muy wone dialogue ak paix bi nga xam ne moo nekk ci réew mi parce que mhm. au delà de tout ñun dañoo am benn dénominateur commun mooy réew mi rek moo ñu ñor te lépp lu nga xam ne ci jàmm lay nekk rek ci loolu lañu xam fii lu ñu xam mooy xëy dem voté ji dellu soit tranquillement or bu ñu gisee tey ji le CUDIS di teg charte pour la paix. Mhm. kooku dañ koy rafetlu. Mhm. du ñu nag euh, abondé ci sens bi nga xam ne le président du PASTEF Sonko moom lay appelé à la violence c'est vrai que euh, c'est pas ça ne se justifie pas. Mhm. parce que ñun ba léegi gisuñu violence bi am. te en son temps aussi bi nga xam ne am na des heures entre lui mhm. ak ses partisans les partisans d'un de nos camarades en Casamance. ñoom rafetlu wuñu ko. Mhm. sous aucune forme. ah mais soo xoolee est-ce que ñooñu ñooñu aussi ñoom ñoo ko provoqué par rapport ak. ak li fa jot a xew te mënut a demee quelque boor bu muy jógee. Mhm. rek rafetlu wuñu ko. ce soit bien de l'opposition te la plupart du temps c'est des provocations. parce que mun concevoir aussi que des gens puissent se réunir ñoo fekk foofu indi leen violence. Mhm. di appeler rek au calme di lancer un appel aussi au patriote Sonko. Mhm. parce que demain quoi qu'il advienne ñëpp ay sénégalais lañu. Mhm. te la paix mënuñu développe un pays sans la paix. mais est-ce que aussi motif yi mu joxe aussi yenuwul maanaam donc euh, que ni euh, la mouvance présidentielle tey jii ñoom. mun euh, mën nañ signer par exemple la charte de non violence après soo xoolee bon la mouvance présidentielle suñu suñu. respecté wul par rapport euh, seen signature boobu noonu euh, donc eux ils seront obligés de peut-être euh, de répondre aussi. vous savez loolu ñoom la rek parce que je pense que ni la violence la mouvance présidentielle du ko mës a encouragé te kenn mësuñu gis dans cette dynamique là. le président de la République à son image kenn xamee ko violence. Mm-hmm. donc boo ñu ko signé tam dañ koy respecté tout au plus ñoom ñoo am intérêt à ce que ñu signé ko. parce que la paix man duma ko tay di wax. Mhm. ci la lépp xëy. Mhm. te c'est nous sommes dans un pays de paix. Mhm. de dialogue. dara du ko dindi. le président de la république laissera ce pays là comme un pays de paix te dina veiller. au grain à ce que mu nekk dans la paix toujours. ok alors donc bientôt les élections locales euh, dans quelques mois soreetul ñu. ñu fàttali que responsable APR nga au niveau des parcelles derrière peut-être Ba euh, c'est vrai que aussi ñu bëri ñu ngi doon xaar euh, qu'on porte sa candidature au niveau de la mairie de Dakar donc sinon aussi au niveau de la mairie des Parcelles Assainies Moussa Sy la ñu choisir donc euh, schéma boobu le président Macky Sall andi lan moo ci sa xalaat. waaw li ci sama xalaat mooy biñ ci tolloo véritablement tout le Sénégal gis nañu ma ma taxaw porter. sa candidature pour Dakar muy le camarade Amadou Ba ak pour les Parcelles Assainies parce que ñun jàpp nañu ne bët fi may wax ak yéen nii c'est l'un des meilleurs profils pour nous permettre de gagner nettement aux Parcelles Assainies ak aussi au niveau de Dakar suñu profil bu ko gën a taxaw pour mën a gagner le président de la République nettement Dakar ak aussi Parcelles Assainies moom moo doon suñu candidat te et puis au niveau de l' alliance pour la république aux Parcelles Assainies. comme au niveau de euh, tout tout toutes les structures. Mhm. Euh, dans leur globalité taxaw nañu porter sa candidature à travers deux assemblées générales. Mhm. nga xam ne qui ont vu la participation de nos hauts cadres politique ci mhm. commune bi. tel que le ministre d'État Mbaye Ndiaye. l'honorable député Badou Diouf. ak aussi madame Mbathio Niokhasso. membre du haut conseil des collectivités territoriales. avec notre cadre Moudouli et d'autres, et d'autres avec le jeune responsable uh-huh. engagé de la COGER, Mouy Moustapha Sissoko. Uh-huh. Donc, au Parcelles Asseni, notre vœu, notre souhait, c'était tout simplement que Amadouba soit notre candidat. Uh-huh. te moom mooy suñu candidat ba fi may wax ak yow nii moom mooy suñu candidat. mais actuellement les dés sont jetés donc il n'est plus candidat. Euh, les jeunes dés sont jetés certes. parce que il y a la liste de Moussa parce que ñun du liste boo xam ne jàpp nañu c'est la liste de Benno Bokk Yaakaar. Mhm. c'est sa liste. ah jàpp leen ni du liste Benno Bokk Yaakaar. non du liste parce que man sax personnellement biñ ma woowee pour naa bokk ci liste boobu dama décliner cette offre là. parce que li ma jàpp mooy Moussa Sy ne peut plus développer la commune la te au terme de 14 ans amul bilan te itamit il ne fait pas le consensus de lui ñun on ne croit même pas en lui. Et ça aussi, je l'avais dit ouvertement, si toutefois que nous imposons, que nous, on va le sanctionner parce que nous devons soutenir. Dans tous les cas, euh, nous devons Sanctionner, c'est-à-dire, vous abstenir ou vous voter l'opposition Nous abstenir, nous ferons notre devoir de citoyen, moi, voter. Mais on choisira la meilleure liste qui parviendra à le faire tomber. parce que ñun loolu la. mais si c'est l'opposition. même si c'est l'opposition. de toute façon ce sera, ce sera un parcellois. Mm-hmm. c'est ça qui nous intéresse c'est pas autre chose. Mhm. te euh, ñi noppi tey jii toog à ses côtés di xaar pour sanctionner ko ils sont plus nombreux. te mhm. au Parcelles Assainies on sait que ni c'est pas celui-là. Mhm. qui fera l'affaire. tey jii képp ku ñu mënta jël bu ñu jëloon sax bant man jàpp naa ni bu ñu jëloon bant ñu teg ko ci mairie bi il fera mieux que Moussa wante boobu fera mieux que Moussa. Ah, mais ñu fàttali aussi que le, seen leader Abouba il a été reçu par le président de la République donc ça veut dire que tekkam boobu mu def kon il est d'accord avec le choix du président. le président de la République son excellence Macky Sall ak Amadou Ba réeróowuñu. Mhm. se voit. ils ont leur relation à part entre eux. Mmh. donc il a été reçu loolu du lu bees. Mhm. d' ailleurs il a été avec lui à Dubaï il a été avec lui ici au Sénégal ci yenn famille religieuse yi. pour mhm. présenter des condoléances. Mhm. donc loolu lu am la. seen diggante ñoom ñaar c' de très bonnes relations qui sont là et puis am na lu nekk seen diggante ñoom ñoo ko xam. mais ñun en ce qui nous concerne ñun en tant que responsable en tant que militant. au niveau des Parcelles Assainies. li ñu intéressé moo di que ni. pour ces élections locales la nous choisirons librement le candidat bi nga xamante ni moo mën a apporter le changement aux Parcelles Assainies e c'est pas Moussa non parce que soo xoolee même euh, toujours revenant à Amadou Ba euh, li tax bon mu mu mu mu mu nangu rangé wu décision président Macky peut-être euh, même retour poste premier ministre bi ñu sëpp ñu ngi naan moom lañ ko promettre aussi wala soi-disant aussi peut-être moom mooy le dauphin du président. vous vous savez Amadou Ba bi muy wàccee rek déjà comme ministre des affaires étrangères il avait dit quelque chose de très important. mu mhm. que ni il ne connaît pas la géométrie à sens variable. Mhm. c'est-à-dire que euh, amul ay fluctuations ci engagement am ak président de la République. Mhm. depuis lors bien avant ces élections locales bien avant même ñuy wax ci candidature élections locales yi. de tout temps au niveau des Parcelles Assainies même bi mu nekkulee en activité sans aucune nomination ni décret dafa mës di jàppale le parti mhm. organisé nañ fa ay conférences religieuses c'est lui qui a fait les grands gestes mhm. may famille ay bie mag et tout et puis di recevoir et di rencontre les responsables politiques yi nekk au Parcelles Assainies mhm. di témoigner tout ça muy témoigner lenn rek muy sa loyauté vis-à-vis du président de la République mu garder nag tout sa dignité parce que on a vu des gens yoo xam ne dès qu'on leur a enlevé leur poste lu ne dugg nañ si. Mhm. ils ont manœuvré ils ont hurlé par-ci par-là lui nag vraiment tous les Sénégalais confondus ont reconnu que l'homme a gardé sa dignité. Ah, et a gardé sa dignité et a mhm. conservé sa loyauté vis-à-vis du président de la République et il n'a cessé de le leur manifester. et mhm. je pense que ni le président xam na ko bu baax a wax président de la République. parce que loolu aussi li taxoon euh, ñu bëri ñu ngi ko analyser woon que ni il avait des ambitions présidentielles moo tax ñu wàccee ko. jox vous savez quitte de ces ambitions de ces ambitions ñi ko fi wax yëpp ñu ko jàpp a défaut kenn mosul gis Amadou Ba poser aucun acte allant dans le sens de montrer une quelconque ambition. les gens nag sont libres de spéculer on peut tous les habits parce que loolu tamit sant yàlla la. y a des compatriotes qui sont là. des ministres qui étaient ministres comme lui kenn mosu leen prêter ambition. xëy na peut-être nit ñi amuñu ko dayoowuñu ko. Mhm. moom nag yàlla def na gis nga même pour les locales il a été dit que ni c'est le meilleur Dakar. moom ji ñoo xam ne ne il ne mérite même pas aux Parcelles encore moins à Dakar. Mhm. ay spéculation la parce que aussi gis nañu il a l'aura. il a mhm. l'aura te c'est un haut cadre. haut dignitaire de la République. c'est de l'administration sénégalaise qui a eu quand même à remplir une fonction très très importante xam ne président de la République moo ko jagleel mu nekk le ministre de l'économie et des finances et en son temps mu bokk ci l'un des maillons clés euh, l'une des pièces maîtresses du PSE il faut pas oublier que ni le Amadou Ba a fait partie de tout ce groupe qui avait été à Paris pour négocier pour le Sénégal mm-hmm. sous la clairvoyance et évidemment l'esprit éclairé du président de la République mhm. qui, a montré, qui avait montré en son temps et qui ne cesse de le montrer que léegi il est d'un leadership naturel et exceptionnel au niveau de l'Afrique et dans le monde reconnu mu mhm. amoon nag am nag aussi un ministre de l'économie et des finances qui est très compétent bon c'est vrai que c'est un peu osé de ma part je suis de sa compétence mais jàpp nañu ne bi ñu ko joxee tâche bi ko président de la République confier tâche bu toll ni l'économie de notre pays def na ci li mu ci moon ci vraiment def na ci aussi ay résultats am nañ fi ay eurobond am nañ fi aussi des périodes où le doute était là fi amee tension de trésorerie mm-hmm. yooyu yëpp il a sous la houlette du président de la République toujours mm-hmm. il s'en est sorti mm-hmm. yooyu yëpp nag tax na bon nombre de nos compatriotes ak seen yéene comme tout le monde on dit que ni kat am na ay ambition wala taxaw na taxawaay bi nga xam ne war na mën a nekk président de la république. Hmm. libre à tout un chacun de le dire. mais l'individu en question ñun de mosuñu ko gis mu poser acte allant dans le sens de montrer wala de manifester. Hmm. que ni il a ses ambitions. ok donc par rapport euh, toujours euh, au retour du poste de premier ministre euh, est-ce que mënuñu jàpp ni aussi c'est un tâtonnement de la part du chef de l'État c'est un tâtonnement parce que boobu ba léegi boobu gi supprimé woon na ko fii quelque temps après mu andiwaat ko ñu bëri ñu ngi naan peut-être euh, c'était un c'est un tâtonnement quoi par rapport ak li muy jot a def ak yooyu. oui c'est le mot est trop fort parce que ñu ne tâtonnement la c'est dafa parce que le président de la République moo jugé woon ci coobare boppam. Mm-hmm. d'initiative que ni il avait besoin d'un fast track. Mm-hmm. xam ne mën na ko dispenser d'un poste premier ministre mm-hmm. que moom mu am la haute main sur la gestion de l'affaire publique et de par la muy truchement ou par le truchement de ses ministres muy traité ak ñoom directement mm-hmm. parce que contexte bi loolu la laajoon te aussi il est dépositaire de la confiance de tous les Sénégalais donc lépp lu mu gis clairvoyance am expérience tey jii fu mu mënee le Sénégal wane ne ay li yéwén bu jugé ni tey lii mooy gën li gën ci réew mi mm-hmm. dëgg yàlla du nekk loo xam ne tâtonnement la c'est des choses yoo xam ne il en a toutes les informations et il a tous les prérequis pour mhm. mettre loolu sur place mhm. parce que aussi il faut pas oublier que le président de la République performance ak euh, euh transparence ak reddition des comptes loolu la gën mhm. ci dernier conseil des ministres bi passé le bi nga xam ne ñu ngi évoqué évidemment affaire poste premier ministre bi rappelé na ko une administration performante et que aussi saluer le travail de la Cour des comptes nga xamante ne dans la gestion et l'audit même euh, des des des des finances publiques de la mhm. comptabilité publique. Mhm. mu saluer liggéey bi ñu ci def. loolu c'est au niveau de l'administration du pays donc ñu jàpp ni président de la République expérience bi mu traîner à travers tout ce qu'il a eu maintenant il est presque à sept à huit ans. mu ngi nekk président de la république 9 ans donc disons que ni am na assez d'expérience pour juger de la nécessité de ramener tey jii juger ni war na ramener dans ce contexte bi nga xamante ni on a traversé bu ko fàtte corona bi. Mhm. mu secouer durablement l'économie tey jii mu soxla une grande relance le président bu juger ni tey war na mën a indi un premier ministre bi nga xamante ne il sera le chef d'orchestre du gouvernement il sera celui sur lequel. il pourra s'appuyer encore pour pouvoir mener à bien réforme yi nga xam ne mooy le PAP 2A bi nga xamante ni tey jii mi ngi nekk en cours. Mhm. te ñu ngi prévoir déjà un budget de 5150 milliards fii au niveau du Sénégal malgré contexte bi njëm te bu ñu fàtte ni aussi à l'orée de 2022 ñu ngi taux de croissance bi war na mën a yokku mhm. te aux prévisions des, du pétrole et du gaz qui mhm. Mhm. donc euh, ci loolu gouverner mhm. c'est prévoir par rapport li nga jot a développé yëpp euh, selon yow ban par rapport li nga jot développé par rapport un peu à l'économie bi xaw a nërmelu donc euh, selon yow bann profil moo gën a adéquat pour le poste de premier ministre actuellement donc soit un technocrate soit un politicien vous allez me faire taper dessus parce que le président de la République moo mën a am l'attitude bu wax ni profil bi mais am nga am nga sa analyse boobu en tant que citoyen. waaw d'accord on va analyser. Mm-hmm. tey jii man jàpp naa ni euh, le premier profil qui doit pouvoir se dégager il nous faut quand même un technocrate. Mm-hmm. parce que il faut quelqu'un outillé te un orfèvre aussi de l'économie. Mm-hmm. parce que tey jii au sorti de la crise du corona. Euh, les pays. du monde ñu nekk sur la voie de l'émergence il est plus question de leur économie mhm. te ça pour ça il faut un technocrate quelqu'un outillé bien outillé mhm. pour l'économie et les finances mhm. parce que fu mu toll fi ni réew mi loolu la soxla et je pense que le président de la République l'a si bien compris parce que fi ñu jëm nii il faut quelqu'un boo xamante ne war na mën a porter sa vision matérialiser ko au plus vite au plus vite nag parce que le temps na pas Euh, corona bi secoué durablement économie bi. Mhm. heureusement on n'a pas eu de récession. Mhm. donc ren loolu yëpp c'est grâce au président de la République. Mhm. mais à l'heure actuelle le Sénégal plus que jamais a besoin d'un d'un premier ministre boo xam ne il a la tête sur les épaules. il est il a de l'expérience. pour les questions économiques et pour les questions financières. pour mën a tenir quand la barque sous la houlette président de la République. pour la politique moi je pense que ni bu ci amee tamit plus lay nekk. plus lay nekk mais c'est pas ce qui est fondamental mhm. ce qui est fondamental mooy le président puisse atteindre ses objectifs taux de croissance bi ñu jëm di ko prévoir en 2022 23 mu nekk ci ay 8 pour cent ñu jëm ci deux chiffres yi sax d'ici 2024 loolu il faut quelqu'un boo xamante ne il appliquera à la lettre la vision du président de la République mhm. et il comprendra sa vision dina mën a matérialiser les politiques publiques nga xam ne moom le président gëm gëm ok donc ñu fàttali que ñu ngi ak euh, Bocar Ndiong muy responsable politique APR au niveau des Parcelles Assainies donc euh, monsieur Ndiong ñu ngi ci jeexantal émission xaa ñu bàyyi la nga sànni sa kàddu bu mujj. kàddu gi may mujj sànni mooy vraiment di ñaanal président de la république jëmale Sénégal fi mu ko bëggee te poste premier ministre bi nga xam ne ñu ngi koy udd suñu camarade Amadou Ba man jàpp naa ni tey ji parmi nos camarades de parti. Mhm. il a quand même une certaine longueur d'avance par rapport a beaucoup sur sa il vraiment le profil du poste yéene nañ ko ko comme nuñ ko ko mës a di yéene. te loolu bu ci amee tamit ñun duñu mën rafet rafetlu ko. parce que Parcelles Assainies bi ñu jógee tey jii bu ñu xoolee ci gouvernement bi amuñu ministre bu am portefeuille. am nañu certes quelques petites quelques nominations mais jàpp naa ni président tey jii war na gëstu Parcelles Assainies. tey jii bu ñu amee notre camarade comme premier ministre. le mhm. ministre Amadou Ba. dañ koy rafetlu dañ ko koy ñaanal il a le profil il a l'aura te itamit euh, dafa def toujours preuve de loyauté et mhm. d'engagement vis-à-vis du président de la République. Mhm. c'est le souhait de la majorité de tous les nos compatriotes sénégalais. yàlla na ko yàlla antul waaye nag ce qu'il y dans la tête du président de la République mu ñu si présager wu mu ñu rafet njort. jàpp ni on a ok ñu ngi lay jaayee foofu monsieur Ndiob. merci beaucoup.